mbokki internet yu DKR 221 dal leen ak jàmm parking automobile bu nekk ci VDN bi nga xamante ne ñu ngi ko doon dégër piir ci lenn ci ay autorité jàppale na mbir moomee nag daal dinay waral ba ki nga xamante ne moom moo di propriétaire bi daal dinay yëkkati ay kàddoom di sanctionné jëf ji nga xamante ne nag ñu nga koy daal di jëf ca boobu de parking ginnaaw bi nga xamante ne moom nag jamono joojee dañaa njortu ne li mu jege yantoo ak Ousmane Sonko wala rek mu daal di nekk ak militant Pastef moo waral ñu daal di ñëw daal di toj bërëbu liggéeyukaayam bu ñu sukkandikoo ay xibaar jàppale ne nag moom moomee daal dinay doon ab nitub jàmm ginnaaw bi nga xamante ne force de l'ordre yi daal dina ñuy ñëw di fa jëlee li nga xamante ne moom moo di boobule parking mu ngay xam ne nag daal dina lam leen di wax mooy dajji leen place baa ci ay intervention autorité daal dina ñuy am bu ñu sukkandikoo ba tey ci borom parking bi moom nag nee na li mu ci daal di am dafa daal di ñëw daal di laajte ana lan moo fi xew ginnaaw bi nga xamante ne autorité yi dañaa ne ko oto yi dañ ko fee war a lu mu rafetlu la boobule décision ginnaaw bi loolee nag mooy xam le ne oto ya am na yenn yoo xamante ne woon nañ ko fa mu daal moom sax dem na ci préfet bi di waxtaan ak moom ni lim ko wax daal di ne ko bëgguma wax ak yow ak ginnaaw moo di tijji a parking bi ba tey Ndiaye nee na jamono joojee nga xamante ne moom nee nañu ab militant Ousmane Sonko la wala dafay jàppale kii di Ousmane Sonko mu daan ne man xaritu ñëpp laa defuma politique defaanuma politique duma conseil municipal bokkuma ci benn parti politique mu daan ne dafa installé wu fii nga xamante ne moo di ci diiwaanu Sénégal ci Ndakaaru di def li nga xamante ne nag moom moo di ay liggéeyam liggéeyam mu koy def ci jàmm ak salaam waaye nag ci diggante Simleek saa ndaw ña daal dinañu fay fees dell a ginnaaw intervention yi nga xamante ne leen ci ay tamit ñu nga bëggoon a nag wane seenub naqar ca waxtu boobee ki nga xamante ni moo di borom parking bi daal di génn di sàkku ci ndaw ñi ngir ñu ànd ak dal mu daal ne nag lii force de l'ordre yu bëgg jamono ji mooy ñu daal di fiy jëlee oto yi daal di daaneel parking bi nañu leen ko defal place baa ngi noonu nañu ko daaneel muy xam ne nag daal ne situation bu tendu bi nga xamante ni moo am ci diiwaanuk Sénégal jamono ji nekkatuñu ci Sénégal goo xamante ne dañuy toj waaye dañaa nekk ci Sénégal goo xamante ne dañuy tabax tànk ñoom nag jamono ji lu ñu gis mooy daal di toj lépp loo xamante ni suñu moomeel la bismillah place baa ngi noon nañ ko toj mu daal di nekk ay kaddu yi nga xamante ne nag propriété bu parking bi moom moo daal yëkkati yooyu le kaddu ginnaaw parking bi nga xamante ne nag bëri nañ foofu ca VDN ba waaye ñaar ci ay place dong la ñu fa daal di dégër biir toj ko ba mu daal di mokk ñoom nag la ñu ca njortu mooy waajoojee dafa nekk di jàppale kii usmaan Ousmane Sonko wala mu daal di nekk ab militant bu Pastef waa ji ne laalewul ci politique taqewul ci politique benn yoon